waaw comme ça ni ma ni ma la koy waxoon quoi gaaw yi nga xam si naan daanaka boo ko taalee da nga mel ne taal trois cinquante moo nekk nii gaaw gi macha allah kii boo ko taalee fépp xet nekk dafay dañ moo nekk nii waaw ça dépend am ñu koy woowee gaawee Angleterre am ñu koy woowee leneen ñun suñu gaawee gaawee toj xul lañ koy woowee quoi. waaye moo nekk nii gooy gi macha allah foo ko taal da nga mel ne ko taal trois cinquante mille kii ci baa trois yi nga xam ne amee mën ko amee feneen gis nga ni diggante bi moo nekk nii diggante en général ñu ko déggee dañuy jaxaan diggante day naqari affaire Sénégal mais diggante boo ko taalee ko taal trois cent mille sax maanaam daanaka yaa koy daaxale sëñ bi day bu dee premier étage nga nekk day yéeg ba quatrième étage kii may digg jëy moo nekk noonu waaw maj pen daan nekk nii kii nag mooy soos kaani soos piment lañ koy goowee kii daanaka jeg bu soxor waroo koo taal dafa wex quoi kaa suuf mi leen suuf mi ñu bari xam nañ ko moom daanaka moo nekk nii man nag koo changé du du ma tuddee suuf mi leen dama naa ko mbaraaka lay doon à part de zéro taal saxataan a nekk nii saxataan moom ñëpp xam nañ ko daanaka boo seetlu sa Saraxule ñëpp ñu ko jënd waaw na bagage duggi moo nekk nii loolu ko defati waaw kii mooy naka jidda original naka laay jaay nag waaw du fóodu dara original naka fii da nga ko mën a amee quoi waaw kii mooy réegu réegu hmm. kii mooy nokkas hmm. am na yeneen yeneen cuwaay yoo xam ne si seen dafa jeex xam ne si kamtu la ñëw quoi waaw bu dee par Ronchamp ñoo nekk nii Ronchamp yi moom daanaka am na ay heure aussi day am heure boo xam ne te ngay siyaare Ndewlaas TV boobaa bi ngay bi ngay pomp waaw nga rek nga laal noonu waaw boo demee ba yenn heure yi nga dugal bii nii waaw yaa maa ma gën a xam wuy na sës wuy na sës moom à de 3 heures du matin nga koy nga koy def zéro heure moom na bagage dugg woon bi moom mën na bagage dugg waaw am na yeneen genre yi nooy tax doo sa noonu nekk nii nekk noonu yaay sama nekk na waaw jéggi feres nag ñooy laal lii nag caw sa xóor ma yaa naan caw sa xëy man caw sa xóor laa koy tuddee quoi ma nekk nii yaa man man maa Thierno Thierno gars yi xam nga Thierno mu yor Balla Gaye maa Thierno jéggi fi mu toll nii maa yow seen cumu gars yi bu baax Niger ñoo nekk nii Niger di ma la waxoon sànq xam sànq maa naan la jégg am na Niger yoo xam da ko war a sol yenn heure yi comme bii nii par exemple xam nga bii nii xam nga lii def naa fa beeree aja mu ngi nii kenn tuddee kóoleel kóoleel ginnaaw lay féete nga ni ginnaaw gi nii mu koy gis seen waaw tenue policière ñoo nekk nii yëpp ay nuisé ni jaay te nuisé classe laa jaay ah waaw nuisé classe kese kese kese laa jaay la doon koy defee yëpp ci baari cuwaar yi nga xam ne amee mais am na heure boo xamante waxtaan xam nga nii short lay doon yii mën a toog ataaya mën nga toog def sam jaar bu baax jàkkaarloo alaaji bi waaw am na carré yoo xam ne yi nekk si ginnaaw lan la set mënu koo mënu koo laal parce que mën na koo dagg te rasoir du fa xaj su boobaa da nga jël tendance bi nii ba bëgg naa jeeg boo xam si day sang jëkkër ba mu set tëra ko di ko watal ay ay karaw cokka moo nekk nii tërës yi nekk euh, ci nga koy watee ki ci baar cuuraay nga xam mën amee mënu ko amee feneen ma ngoog mais dara ah affaire yi baax ah affaire yi xam ne doo gis fenn indi ma ma def waaw mi ngi nii fer yi naan kii si baa cuuraay nga mën am man jaay ma fer yoo xam si ay boja boja la waaye fer yoo xam si boo ko taalee boo ko takkee taal cuuraay boo jegee xale mu ngay ruy taal si jëkk nag mu indi beneen problème eh, cristal original laa jaay jaay ma fer kaws gis nga yéen ñu wàccee Saint Valentin gis nga kii moom ci baaru cuuraay nga mën amee moo nekk noonu rouge lay doon yëpp ay fer la neen fer fer dafa baax ci ndigg jéeg bi dafa tàkk di fer ndax fer moom daanaka day yokk day yokk ngóor a ngóor a góor quoi parce que tant mu ngi dégg fer yi karkaraja rek day gën am aak nga jël lii kii prime la quoi moom ba ngay nettoyer yaram bi rawatina boo nekkee ñaareel na war nga ñetteel bu ko defee da ngay mën a xasoo sa aawa xam boo bi yóbbu ko gauche jël tànk bi yóbbu ko droite sa gis suuf di yi moom si xasal na di xam nga bu ko defee yow wàcc sa aawa quoi waaw bu fekkee aw nga tamit mën nga wàcc sa ñaareel sans dépendre yaa ma gën a xam waaw man nag ñaareel laa faral nag ngeen ma baal nag euh, boo paree nga jël sa huile boo ko nettoyé pare nga sa huile huile de massage nekk day day day yokk cawate sa jëkkër boo ko dee ba nii nag soo nga jël nag sa machine bi moo nekk nii ma la waxoon machine bi nag massage day nag quoi da nga koy teg des vibré boo ko teg des vibré nga massage ba mu baax soo paree nag nga soloo ko nag sa calson si vêtement yu baax nekk nii góor la quoi mu ngi nii boo sangoo pare euh, bala nga sos université bi nga laaj ci quatre point quatre noo yi est l'ouest nord sud ba kii 24 heures lay diire xel gu moo nekk nii léegi minu bi fii la nga xam ne amee ci baaru cuuraay ba pare nga sos université xam nga jaaga jaaga def taal sa cuuraay waaw soo dem nag ci combat mi nag waaw combat na bari na ay bagage yu mën a àndal comme yi euh, kii la euh, ay mënat la quoi a mënat boo nee ma nga jël bi simple bi la seen bi am nañu vraiment euh, complet bi complet moom lépp lay àndal lépp mu ngi nii di takkaay bàtt bi di di woy takki boo lii nga jël lii moom mooy nekk ngalab gu waa fi nga koy long mu ngay xëccee boo xëccee nag am na takkaay tànk yi bët yi yëpp ana caw sa xóor nag waaw lépp nag bu leen bëggee xam dëgg-dëgg rek dañoo seet baax cosaan mu gën leen koo leeral quoi moo nekk noonu nuisette yaa ngi nii bagage yi yëpp ngi nii quoi moo ngoog